Grand Yoff bokk ci gox-goxaan yi gën a yëngu ci ndakaaru rawatina ci jamonoy élection yi ñu nekk fii ci Bandiakhile ñu fekk fi ay ndaw yu seen réew jaral lu ne ku ci mel ni Pierre Sène suñu la autorisé marche mën nga dem nga marche ñu la autorisé wul am nga yeneen recours am nga yeneen recours nga yeneen recours yoo xamante ne xam nga tey mën naa la wax tey benn exemple Euh, réseaux sociaux yi tay moo gën a efficace que sa marche maanaam pour jàllale sa message réseaux sociaux moo gën a efficace que tay sa marche waaw parce que marche bi ñëpp duñ si dem mais tey réseaux sociaux tey lépp loo si balancé say pratiquement ñëpp koy jot à 90 pour cent maanaam su nekkee am nga message boo bëgg véhiculer dara gënul efficace réseaux sociaux actuellement soo xoolee euh, kii bi ñu nekk nii mooy moyen de communication bi nga xamante ak de propagande bi gën a garaaw te loolu ñun xam nañ si dara. Cheikh Faye nag moom di wax ne. nguur gi su bëggee jàmm moom rek moo ko war a jiite. liste bi coow liste coow li si élection yi fii sans dépense ñu ko jiite rek parce que dëkk moom boo ko jiitee nga woote jàmm jàmm ya am mais boo wootee leneen tamit nit ñi buñ la ci fekk see tamit lépp sa kaw lay këppuwaat ndax coow liste yi moom yaakaar naa bu buñ tegee lépp si yoon. élection yi kon sama collègue bi ni mu ko waxee léegi dem voté ji la carte la mooy fal mooy folli. rax ci dolli ne manifestation yi gañalul manifestation pour one. sa doole la xam nga nit buy politique foog mu wane ni man doole ji laa am ci politique ñuy manifester mais réseaux sociaux yi li am a grave sax que manifestation. manifester it lu war ci képp kuy citoyen waaye jot itam ñu demee ak xel ndax kat